di gërëm film bi nag bon le film a été offert par Joining Forces que je tiens à remercier Joining Forces c'est un regroupement d'ONG où y a SOS Village Plan International World Vision Child Fund Educo Plan International c'est Terre des Hommes je me bats toujours avec eux, mais aujourd'hui quand même, <laughs> je tiens à rendre hommage à Joining Forces parce qu'ils ont bien voulu nous accompagner pour l'organisation du panel du début à la fin. Donc merci beaucoup à Madame la directrice SOS Village qui gère le lead de, euh, de Joining Forces. Donc maintenant dem ci wolof euh, Madame Soukayna Mbaye mi nga xamante ni tey mooy représenter les enfants du Sénégal plaisir la pour ñun parce que jigéen la tey damay tordre protocole yëpp di njëkkee ci moom parce que jigéen la ba pare xale la te xale yi ñoo ñu tax di sonn ñoo ñu tax ñu toog fii monsieur Mamadou kebe mi nga xamante ni nekkoon na directeur fii ma toog tey ji yore woon piir form tey mu toogal fi président Macky Sall te jëlul ndaare ci li mu représenté yàlla dogal na nag dafa bokk ci njabootu président Macky Sall te di def li ko ci war donc monsieur kebe dañ lay sant di la gërëm. monsieur Wane doyen Wane doyen Wane tey jii mën na wax ci casquette bu ko neex mën na wax ci casquette xale yi mën na wax ci casquette société civile mën na wax sax ci casquette direction de la promotion des droits et de la protection des enfants mën na wax ci casquette COPIL tey jii parce que il est le président de la commission scientifique COPIL bi nga xamante ni c'est le comité euh, de pilotage de la journée de l'enfant africain et euh, de la semaine nationale de l'enfant madame Nicolette ñi nga xamante ne tey moo fi toogal UNICEF ba pare de surcroît jóge Afrique du Sud mooy nationalité yoon tey jii ñuy manif magnifier di fàttali encore di commémorer la journée de l'enfant africain journée la boo xamante ne ay xale la yoo xam dañu leen booboon parce que dañoo génnoon en 1976 en Afrique du Sud di def loo xamante ni marche la pour wane ni ils ont droit à l'éducation ñu boom leen depuis boobu au niveau de l'Union africaine ñu instituer la journée de l'enfant africain ñu koy feete année bi thème bi nekk les droits de l'enfant dans l'environnement numérique waaye au Sénégal dañuy lancé wàlle la semaine nationale de l'enfant tey jii loolu moo ñu tax a toog fii mu ñu am thème li nga xamante ni mooy les droits de l'enfant ci internet bi mais surtout xale yu jigéen yu ndaw yi nan mooy suñu taxawaay par rapport ak ñoom ñuy rëp ñuy nuyoo aussi ki nga xamante ni dafa ñëw représenter Joining Forces Joining Forces benn consortium la ñi nga xamante ni dañuy jàppale xale yi ñu nekk ci biir mu am ñi nga xamante ni SOS village d'enfants ñoo ci nekk d'ailleurs ñoo gérer lit bi cette année mu ànd terre des zone nekk ci plan international nekk ci EDUCO nekk ci euh, ñu bëri nekk ci bu ma limee damay juum balaa ma leen di fàtte tey jii ñoom ñoo fi toog di ñu jàppale ah, du ñu fàtte ministère yëpp ministère de l'intérieur ministère de la justice ministère de la santé ministère des collectivités territoriale ak la direction générale euh, de la protection sociale ñëpp képp kuy état daal parce que protection des enfants dafa transversale mu am l'ensemble des sectoriels parce que wér-gu-yaramu xale bi état civil am ndax mooy kan droit wam parce que xale bi am na ñoo xamante ne mën nañ def njombe te fekk amul wuñu 18 ans ci kan moo koy gérer ak xale bi nga xamante ni dañ ko violé mbaa ñu violenté ko loolu yëpp ñi wër loolu yëpp ak ñi nga xamante ni c'est l'éducation nationale parce que la direction de l'éducation élémentaire ñi ngi fii kon de d'un amont de à Laval lépp loo xamante ne rek dafa war xale bi bu juddoo ba mu am 18 ans ñi ko wër ñëpp ñi ngi fii tey ñuy sant di gërëm di wax état du Sénégal dégagé na politique ak les femmes leaders la présence des femmes leaders dans cette salle ñi ngi fii parce que y a l'engagement des femmes une politique dañ koy définir ñu ko porter par rapport à la vision le chef de indi au niveau des terrains en plus des ñoo xam ne dañ koy porter sur le plan public ñoo xamante ni sur le plan politique ils comprennent quelle est la vision de cet homme ils comprennent quelle est la vision de cet homme par rapport à la protection sociale en général mais par rapport à la protection et la promotion des droits de l'enfant voilà pourquoi tey jii ñu toog fii ñu fas yéene waxtaane lan la état def booboog léegi quelles sont les difficultés état bi lan la am te état bi lan moo ko desee pour mu war mën ko def parce que état mënta mate lépp waaye booboog léegi lan lañ ci war a mën a dolliwaat lan lañ ci yokk ak tey lan mooy application bees bi ñu leen indil pour nga xamante ni parents yi dinañ mën a surveiller seen doom yi fan la ñuy dugg ci internet bi suba ba ngoon lii moo ñu tax a tey toog fii internet nag xale daf ci am accès daf ci war a am accès lii la état bi wax par rapport à la deux loi 2008 bu ci amee accès nan lañ koy protéger par rapport ak la protection on protège quoi les données personnelles des enfants lan mooy données personnelles tur sant euh, xaw ma nu ñu koy waxee sax lii définir deretam euh, ah au delà la l'ADN groupe sanguin moom turam santam tout ce qui permet d'identifier l'enfant d'une manière directe ou d'une manière indirecte avec ou sans son consentement te le consentement ne doit être vicié en aucune manière te xale bu mënul joxee consentement kan moo koy joxeel waaye juram waajuram jur bi bu koy joxee nan la ko mën a joxee tey lii moo ñu fi boole tey waaye surtout nan la ñuy protéger suñu doom yu jigéen yi seen photo yi nan lañ koy protéger seen tur nan lañ koy protéger jël xale solol ko sàjj ko ba mu bëre génnee ko ci internet bi foofu nag la ñuy lancer un appel aux parents parce que am na loo xamante ni droit la droit dafay définir une infraction mooy boo wàccee yoon bi l'infraction d'une manière claire dans le code pénal et dans le code de procédure pénal dañ ko définir waaye am na loo xamante ni c'est l'éthique et la morale est-ce que waajur war na ko mën a def ci doomam exposé ko au niveau de l'internet alors que mu war a nekk futur ministre de la femme wala futur président de la tey lii moo ñu fi boole tey ñu war a càmbar loolu war ko waxtaanee war protéger suñuy doom war a protéger suñuy doom ci internet bi waaye elles ont droit aussi à l'accès à l'internet may sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax place su xale de fépp la ba mu des ci mbedd na ko waajur ji dégg nañu protéger doom yi état dafay def li ko war te du doy xaalis dina fi xaa abadan dañ ciy jopp jàpp rek waaye la responsabilité première incombe aux parent ñun waajur yi nañu téye doom yi waaye ci biir parent bi nag je lance un appel particulier au nom de madame la ministre de la femme de la famille et de la protection des a une di jël la femme di ko mettre au cœur de la chose nous les femmes nañu téye suñuy doom ci biir kër yi waaye bu ñu leen téyee ci biir kër yi itam nañu am bët ci li ñuy def surtout ci tablette yi ci ordinateur yi ak ci téléphone yi asalaamaaleykum wa rahmatullah